Babacar Mboup yaa ngi en direct Walf TV émission balance yaa ngi ñuy dégg. waaw sëñ maa waaw waaw ñàkkul ne war ngaa joxe sa xalaat ndaxte interpellé nañ la ci biir waxtaan bi kon ñu bàyyi la nga wéyal rek ginnaaw ba nga doon suivre li nga xam ne moom mooy tàmbali ko ba euh, maa ngi lay nuyu di leen ziar ñoo ngi nuyu itam sa imaam Mansour Samb dafa mel ni am na ay vidéo yu kat yu nekk léegi xam ni def nañ li ma doon laaj nag li nga xam ni moo ko teglu ndax moom laa ko doon waxal question boobu laa koy laaj ñu doon. doo moom waxuma woon ak moom doomam bu ñuy wax Aradi Ñas laa doon waxal. Arabi Ñas doomam hmm. bu ñuy wax Arabi Ñas laa doon wax Arabi Ñas moomu sama benn xarit bu ñuy wax Madina Jeng maa ngi koy tudd ci audio bi moo ma jox numéro ni ma dafa jiite association bi nga ma ko jox le 16 mai à 16h34 copies yëpp danaa la ko yónnee capture d'écran yi ak waxtaan bi le 16 mai 2021 la ma yónnee numéro arabe à 16h34 ma yónnee arabe yi message à 17h15 benn message bu 3 minutes 19 secondes di ko présenté kan mooy am na yi ak li ñu bëgg a def ak li ñu naan moom arabe yi tontu na ma. a dix huit heures quatre minutes ci cinq minutes vingt six secondes wax jooju tegu teguñu ko te teguñu ko aussi alors ni ñu doon waxtaane moom moom musuma wax ak moom directement moom musul am musul am leer na xam naa ni nag aras moom aras mën nga yëngatu yëngatu bu rëy waaye musuma wax ak moom moom moom moomu wax doomam bi ñuy wax arab yi ñett laa doon wax parce que association la yor boo xam ni ci sama benn xarit la jaare moom moom ma jox numéro bi ñu doon waxtaan ci ma invité ko ci ànd sàmm jikko yi comme niñ koy invité nag association yëpp kenn ci nekk li mu xam mu ñëw intégré ay commission bu amee ay jumtukaay bu amee dërëmam bu mu ci def wala ñaar dërëmam loolu kuréel yi seq ànd sàmm jikko yëpp xam waaye moom moomu di wax mës na wax ma wax musul am. ok ci àdduna musul am. d'accord loolu rek laa gis ko leer na leer na <laughs> alors sëñ Babacar. waaw. waaw waaw loolu moom leer nañ waxoo ak moom ki nga xam ne moom mooy ngay waxal moom mooy tax tudd nañ turam ci ci li nga xam ne moom mooy fin audio bi yaakaar naa loolu leeral boobu dégg nañ ko bu baax a position bi leer na. waaw moom lay jaajëfal direction bi. musuma wax ak moom musul am. dëgg la leer na Sénégal yëpp nañ li nga wax. voilà voilà ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm bu baax a baax euh, moom euh, Babacar waaw moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax alors kon dañuy daal di ñëw ci plateau bu wéndil waxtaan yi rek donc ñu jël dernier ñaari observation en fait ñu dem ci deuxième thème bi parce que temps baa ngi dem te am na beneen thème bu des rapide waaw le débat docteur il parle d'une jurisprudence jurisprudence lay waxee mhm. pour pour préventif quoi pour que il n'y ait pas de dérapage autre mhm. mais imam